café Touba Madibo di café bi kilifa yi taamu café bi jëwriñ yi taamu boo ko taalibe yi gën a firndeel loolu yi ngir sell gi mu sell neex taw féexal lool café Touba Madibo di café bi ànd ak kaaraange ngeen mën ko wécc ko ci njëg yu xéewale ba noppi mën ko am fépp ci Sénégal wooteel ci numéro yi 78 593 54 54 78 593 50 50 café Touba Madibo café bi sàlloo cafkay café dëkk bismil ilaahi ci barkeb say xi fàddilu mi mbokki Sénégal su ngeen bëggee xam la numéro un des carreaux da ngeen agsiwul fii si Touba jàppale ni mbokk yi bi tay foox accès ba léegi ñu nag société bu nu ràññee loolu si wàllub carreau si àdduna wërngal këpp ci liggéey bu baax si ay carreau yu mucc ayib waaye nag mbokk yi fii si Touba seen représentant bii di Touba xéewal carreau nekk si Touba 28 kër Serigne Mbaye Sarr jàkkaarloo kër Serigne Abdou Wadour lépp lu ngeen itteewooti si wàllub carreau ngir seen ay travaux si ay carreau dernière génération mën a dékku mbooleem température waaye nag bu am étanchéité prix xéewal yi boo dul am faneen fu dul fii mani mbokku am nanu grès poli 40 sur 40 ak it grès poli 60 sur 60 amit porcelaine 40 sur 40 60 sur 60 amit émail dimension 30 sur 30 40 sur 40 waaye tamit am carreau faïence sur 30 25 sur 40 ay antidérapant si ñaari façon am nanu antidérapant décor antidérapant crin 30 sur 30 amit grès sédam bari ay façon loolu première qualité 98 04 am na fi également ay ci dimension 30 sur 30 am nañu couleur bu beige amit couleur bu gris ah mbokk lii nag mooy la qualité totale saa su ngeen itteewatee produit yu baax bëgg ay matériel yu mucc ayib ajo si wàllu carreau bu ngeen agsee fii si Touba xéewal carreau boole magasin bu jënd di jaayaat dama ni jaxatul dem usine ba fii la gën a yombee fii la gën a yembee fii la gën a xéewale ak si xam bu ngeen bëggee lépp lu aju si wàllu sanitaire si matériel de qualité am nañu lavabo ay chaise anglaise wala ay robinet ak lépp lu mën a doon mbokk ay commande ñu defal leen livraison lu mu sori sori si Sénégal wala si biir Touba sunu ay oto yemb na gaaw leen gaaw woote si 77 501 24 34 76 585 53 46 ah bu ngeen bëggee nag seen i mbëbët antu ñëw leen seet si représentant Tayfort di Touba xéwal caro si Touba 28 lépp yemb. établissement Touba Daaru Naïm Njaay jàllabi barab bi mooy spécialiste si lépp lu aju si wàllu njaayum jàllabi waaw kenn matul Maroc Dubaï Émirats arabes unis Arabie saoudite Iran ba Irak dama ni lépp lu ngeen bëggati si ay jàllabi doon ay jàllabi yoo xamante ni tegu na si temps dëgër na rafet na ci couleur bu ngeen mën ci bëgg mu doon taille également wala sax ay manteau a ak si ngeen nag lii nag ci ay maxane yi maxane yi nga xamante ni mbokk yi da koy sol mu assorti ànd ak sa jàllabi wala sa manteau juddu wala sa xabtaan maanaam daal ma ne moom style booy wër boo fi agsi xam ni établissement Touba Daaru Naïm Njaay jàlla bi fii nag mbokk daamani ñàkk ko xam de wóorul yamuñu foofu lépp lu ngeen itteewoo si ay dàll ay dàllu cuir yoo xamante ni la mu dëgër mucc na ayib waaye tamit bu ngeen di wër ay marakis parfum moom lu ngeen ci bëgg moo ngi fii di ay parfum de classe ay parfum yi ngeen di utiliser ngir seen safara bagage yi nag mbokk yi nee naa jaxatul kenn dem capitale sénégalaise Dakar di ko fay jëkkaan yi jaratul kenn dem bitim réew am na nañu ay valise ngir seen ay bagage si jaada si bu ngeen si mën di bëgg si jaada bi nga xamante ni mbàjj la nooy na nepp yaatu na également ay laxasaay ay maxtu amit ay baylaat dama ni mbokk barab bi moo am ay bagage yu ngóoriti établissement Touba Daaru Naïm Ndiaye bi mi ngi si tuuba jàkkaarloo kër Serigne Abdou Lahad Mbacké si jumaa ji woote leen gaaw 70 354 07 10 wala 77 925 62 97 ñun daal mbokk jàpp leen ni lu ngeen di itteewoo rek moom tax a jóg moo tax ñu jëli lépp indi teg fii si Touba établissement Touba Daaru Naïm Njaay jàlla bi taxaw temm ngir gunge leen si lépp lu ngeen itteewu si ay jumtukaay yu mérité Rafah TV une chaîne de télévision culturelle et religieuse. xas nañu. ci ci ci xasida yi rek ci xasida yi rek lan mën a xam sëriñ bi ci xasida yi rek seen ku mën a bégale ci xasida yi rek. xasida yi yaram bu tawar. asalaamaaleykum téléspectateur bu Rafah bi amati nañ mbégte ak bànneex saa su waxtu wi jotee seen émission bu mag biñ baaxoo def ak yéen euh, muy seen émission Ahlou Khassida tey nag seen émission Ahlou Khassida ñu fa yéene koo def. spécial Cheikh Mouhamadul Fadel deuxième xalifa Serigne tuuba euh, bu ñu nee Cheikh Mouhamadul Fadel nag bu ñu yemee foofu rek ñëpp mën nañoo xam kan mooy Sëñ Fallou. tey nag ñu war cee séq ak waxtaan ñaar ñoo xamante ni si kenn duuti leen laajte ci àdduna bi muy Serigne Saliou sekk alxuraan moo féetee sama ah, loxo ndi joor ki nga xamante ni si moo koy wettil ci jotaay bi muy Serigne Modou Gallass mbaay Serigne Modou Gallass Mbaye nag kenn duutu ko laam-laame ndax saa ñu ko tuddee rek xel yëpp daal di dem ci Cheikh Mouhamadul Fadal ngir bëgg ko bëgg ak njàng moo xamante ni si ràññeeku na ci lool ci eh, wolofalu falu Cheikh Mouhamadul Fadal bala ñuy xuus ci biir waxtaan bi dañuy daal di jox sunu ay gan ñu daal di nuyoo yi nga xam ne ñu ngi leen di bàyyi ci bàyyi xel biir Rafah TV kon sëñ Modou Gallass Mbaye ñu daal lay jox kàddu gi nga daal di nuyoo ñu lay bàyyi xel aouzu billahi mina seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim ñu ngi sant yàlla baax di julli ci sangub sang yi sayyiduna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam di dellu sunu kóolite ak sunu yaakaar ci seexuna ahmadul xadim noonu la ñuy ñaanal cheikh muhammadul muntaxa mi toog jataay bi cheikhul xadim yàlla na ko fi yàlla bàyyi waaye noonu lañ koy ñaanal cheikh abou baraka mi toog jataay bi cheikh amadou fadal di nuyu mbokki Rafah TV yëpp fu waaye mën a nekk tey dégg suñu kàddu wala nga jàkkaarloog sunu jëm ñu ngi leen di ziar kenn ku ne wàccuwaay nga am ci sunu jëm ñu ngi la koy jox am mbégte bu baax di nuyu Serigne Saliou Seck sama jarbaat ñoo bokkal palaato bi di nuyu Soxna Jaara di nuyu caméraman yi fi nekk yëpp Cheikh Mamadou Mourtada maa ngi koy nuyu. di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah. ñaañëfal euh, nañ la bu baax sëñ Modou ci nuyoo bu am solo bi di jiital ki nga xam ne moom lañ waroon a jiital ci nuyoo bi muy Cheikh Mountakha Bassirou ñu di ko ñaanal mu yàgg fi loolu tëwét di ñaanal sunu waajur Serigne Abdou Samad son yi bu yàlla bàyyi ko fi ba li mu yéenee liggéeyal Serigne Touba Khadim Rasoul mu defee ko ni mu ko soobee kon Serigne Saliou dañ lay daal di jox nga daal di nuyoo ak mbokk yi nga xam ne ñu ngi lay seetaan ñu door a xus ci wax. a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim وابن مسعود وجاه بن سلام خن البلاء والدرحين وكرام محمد سيد الكونين والصخلين والفريقين من عرب ومن حجم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما mbokki asalaamaaleykum wa rahmatullah ginnaaw bi ñu sant yàlla jiri ci yonent bi di sant Cheikh Ahmadou Bamba ñaanal si Muntaxa mu yàgg fi loolu te wér sama maam bu sa bëgg nañ loolu di am mbégte ñëw ànd ak Rafah TV ci màggalug Serigne Fallou gi ay di siyaar bu baax sama di jaay Serigne baax te bëgg lool Serigne ba ni nga ko waxee rek foo ko tudd rek xel dem ci Serigne Fallou mu doon ku baax te bëgg lool lu baax yal na yàlla defal la jàmm xewal dem mbégte lool di ziar bu baax a baax mboolem ku ñu seetaan rek. Aïssa jaajëfal nañ bu baax Serigne Saliou Seck alxuraan muy ku ñu ràññee di ndaw loo xam ne ci liggéey Serigne Touba rek ci lay dox ah, bala ñuy dugg di xuus ci biir waxtaanu Serigne Fallou wi dañuy delloo sëñ Modou Galas Mbaye kàddu gi mu ubbeel ñoo xasida wala wala falu Cheikh Mouhamadul Fadel ñu mën a xuus ci biir waxtaan bi door a dellusiwaat ci moom sëñ Modou Galas bismillah bismillahi irrahman irrahim wasala allahu ala seyidina wa maulana muhammadin nabilumi wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wasallama taslima yaa ayu yaa qayumu salli bisalaam ala allazi jaa bi ahsani alkalaam ala allazi jaa bi ahsani alkalaam salli wa sallim wa taqabbal sal kalaam munna ala xaalisil uroofi bima yafruqu sanna min mahroofi linaasimil uruufi xallid rabbaa yaa man kafaahu saxruuri wannubaa wali yaa raxmaanu yaa raxiimu yaa أيوة يا خيم يا مكرم يا ناجاك عبدك القديم الصلاة مسلما على مستنسي الخلا الله عي زمد وباخي سبحانه ذو كنف وواخي ونعن في كنف المني min kulli sarrin wa asan zanni musudam dikinan min xiyaati amada xayral anaami muntaan wa muxtada man qaala fi sammanin wa baay amano laahu min albalaay subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifoon wasalaamun ala almursalin walhamdulilahi rabbil alamin addir Cheikhna Ahmadul Xadim macha allah Cheikh Mouhamadou macha allah Serigne Modou Gallass Mbaye ci njàng moo am solo moomu ñu ngi lay ñaanal jàmm ak xéewal yal na yàlla wéral baat bi xam naa dinañ dellusiwaat ci moom te sëñ Saliou dañuy commencé rek ci portale Cheikh Mouhamadou Fadel euh, tey boo ñu doon wax kan mooy Serigne Fallou. jërëjëf soxna maam Bousso kan mooy Cheikh Mouhamadou Fadel. Cheikh Modou Fadal nag dina naqaree xamle waaye dina neex a xamle naqaree xamle gi mooy euh, ni mu mel ak ni ko yàlla bindee ak njàmbaar gi mi ngi mel ni boo jëloon ab kopp bëgg a jeexal géej gi du yomb loolu mooy naqaree xamle gi ndax moom géej la ngir ay mayam neex a xamle gi nag mooy li mu fi liggéey dafee dafe da ko fee bàyyi ñëpp gis ko te ci seen bët. te kon lii sëñ Fallou ko fi def ak moo defar diw ak lii la fi def dina ko mën a xam kon ku neex a xamle lay doon mu doon koo xam ne nag bokk ci góor ñi yàlla doon wax ci alxuraan wax ni ñoom kóllëre gën dige yàlla ba tey waruñu ko minal mu'minina rijaalun sadaqu maa aahadullah alayhi fa minhum man qadaa nahbahu wa minhum man yantazir wa maa baddaluu tabdiilaa kon moom lam dige woon ak suñu borom ba tey dañut doon koo xam ni yàlla xamu ku muy yónni dalay jaarale ci ay wajur yu am solo ndax nit mënut a ñàkki waajur ba ci ngën gi mbindeef sax sallallahu alayhi wa sallam ku mën doon di nga ni kii kii kii mooy waajuram waaw loolu nag sëñ Fallou yàlla tànn ko ci ñaari waajur yoo xam ne ku ne bëgg nga ñu mu doon sa waajur doy na sëkk ci tubaa Touba Cheikh Ahmadou Baba mi nga xam ne mooy waajuram sëñ tubaa dara ji dara ji mu am ak ba bi ko yàlla jox ñàkk gi nga xam ne ñàkkul dara ci lu baax nga xam lu baax rek am na ko ñàkk ko. waaye dem ba ni sëñ Fallou su ma ko amutoon dinaa ko wuti kon la muy wuti lu dul ndaw Cheikh Mouhamad Fadal nag woy juróom wu jigéen mooy soxna bu so bu fekkoon sëñ Tuubaa du baayam sax nijaayam la war a doon moom sëñ Fallou ndax soxna Awa Bousso doomi Serigne Bousso bi la sëñ Bousso bi ak soxna Jaara ñoo bokk ndey ak baay bokk tam ci giir gu ñuy wax jax réew moom sëñ Fallou soxna Mariama Kunta la bokkal ndey ak baay waaye ak soxna maam Faati Mbàkke taarix nag daa bëri wuute ñii dañoo wax ni Daaru Salaam la gën jamono ñii wax ni Touba ñii wax Daaru Salaam bari na lool nag waaye am na ci wolofale sëñ Moussa Ka yu mu ko nettalee wax ni Touba la gën jamono te waajuram moom ko wax muy soxna wu Buso waaye taarix ma bëri ay wuute waaye lu ci mën a xew rek guddi gi mu gën a jamono moom xool nañ ba xam bu pe bu waasee paasee julli xam julli ci la wàcc guddi googu la yor saa salaam defoon bu jàllee xamuñu génn góor yàlla gu wàccat gu ñëwaat jamono ci guddi ko kudul sëñ Fallou ci mbooleem gëstu yi li ñuy def soxna Awa Bousso di doomi soxna Mati Ñang soxna Mati Ñang bàyyam nga tudd sëñ Abdou Aram Ñang dëkk Afe Jolof kon cosaanul yaayam Afe la sëñ fallu ak sëñ Afe Ñang nii ci kër Ñang ñoo bokk benn ndey sëñ Afe Ñang ko mag ndax sëñ Abdou Kumbaan Ñang moo yoroon soxna Awa Bousso ginnaaw bala ko sëñ Tuubaa am ca Cheikh Mamadou Fadal soxna Mariama Kunta ak soxna maam Fatim Mbakke ñu tubaa gii la ñu gën a jamono moom ci bu wér soxna Mariama Kunta moom la sëñ Baara nampandool ba tudde na ko lu ma juróom-ñaari doom ni ko ñoo bokk namp ci soxna Obusa ci Musoma siis kon loolu day wane jikko ju sëñ Fallu am te doon ne ko ci seen wajur wu jigéen wi ak seen baay ba mu doon koo xam ni tam bi mu matee dal jàng sëñ Touba ko dalal jàng xam nga ni sëñ Touba ni la waxal baa nga ni baa mu njàng dina moomu njàng dina war a barkeel moom ak magam sëñ Mourou Moustapha ñoo dalandoo jàng fii ci Touba tam lañ jàng mooy dëkk bi nu dala jàng dëkk bu tedd la ki leen dalal jàng moo man ci góor ñi kon faaw ñu war a mokkal ndax sëñ Fallou nee na bi sëñ bi sëñ bi sëñ Touba di dem géej juróom at laa wala juróom at kon sëñ Touba mu leen dalal dana wax ne nag ab tuut tànk boo bëggee xam ba xam ndax mën naa mat naa dal jàng mooy dalay dénk aw juróom wala mu dénk la dara. ci guddi gi bu asamaan seetee mu ñëw di la ko laaj ana la ma la dénkoon nga xam ni kii du fàtte kon boo ko dalalee dina mën a jàng sëñ Tuubaa natt ñoom ci loolu nag ni xaaral ma dalal leen door a génn bi muy dem bàyyi nag maam Thierno maam Thierno jox leen sëñ Abdourahman Lo mu jàng leen ba nu am xam-xam moo tax fay na leen bor ba waaye ndax jumaa ji sëñ Abdou sëñ sëñ Abdoulaye yàllaay buur di defar ca Mbàkke xewar sëñ Fallou moo ko defoon jàkk ni leen seen bàyyi daf maa jàngal xam-xam muy sëñ Maam Mor jaar moo bëgg a joxe nag moo tax ma naa fi def lii noonu la ko defee ci wàkk Sëñ Abdourahmane Lo ji fu mu ndax bu ñu egsee ci sëñ Fallou ak ñoom Jolof dañ leeral kóllëre gan na ko sëñ Tuubaa doxalee ci ki ko jàngaloon incha allah rabbi macha allah Serigne Saliou Seck alxuraan ci portale bu am solo boobu nga xam ne def na ko ci Cheikh Mouhamadul Fadal eh, ginnaaw bi ko sunu borom tànnale ñaari waajuri sell mu sosoo ci diggante jant ak weer eh, Serigne bala ñuy ñëw ci njàngum Serigne Fallou fi mu jot a jaar ci am njàngam am na sax loo ñu ci jot a duggal tuuti nga ñuy dem ci Serigne Modou Galas Mbaye comme émission Ahlu Xasida la émission ka di ñu jagleel ko tey Cheikh Mouhamadul Fadal ñaari pàc rek lay doon dinañ waxtaane Serigne Fallou dinañ ñëw tamit ci Serigne Modou Galas Mbaye bi nga xam ne moom lañ fi dalal ci jaar jaaram ak lan moo waral Serigne Modou Gallass Mbaye ji ak lan moo ko booleeg Serigne Fallou ayca Serigne Modou Gallass sam ndoorte ci njàngoom xasida fan nga doore sant yàlla bu baax njàngam mi ñi nga doon ñu ngi ko doore ci daaray Serigne Saliou ndax li ma koy faral di wax rek ku miin daaray Serigne Saliou di nga miin nii bu ma jàngee alxuraan ci suba gi ngoon gi dañu lay tëralal xasaayit njàng njàng mi moom foofu lañ ko dooree ci doore ko ci kuréel bi yàlla dogalee tamit ñu jóge ci daara ji ñu tàmbali di roy ku ne wax sëñ Ndongo Thiam yàggul dara ñu xamante ak sëriñ Abdoulahi Seck maa ngi ko nuyu te di ko ñaanal suñu borom bàyyi ko ci kanam euh, di ànd ak moom di ko roy ci njàngam muy jàng ba yàlla dogal indil nu yëfi bopp nag yoo xamante ni euh, tey Euh, ku ni Modou Galas Mbaye rek xam ni jànkatu xasaay la boo xamante ni sëriñ bi moo ko dimbalil boppam boole ko ci ñuy yëkkati yëf yi euh, mu yóbbu ko fu ne nag ci àdduna bi kon loolu sant yàlla la waaye may nuyu sama ay ñaari waajur di leen ñaanal yàlla na leen yàlla bàyyi sunu kanam ndax euh, ni ko sëriñ Saali waxee rek doom bu fekkee da nga koo jur mu toll ci war a dal alxuraan loo ko defal lu dul dal ko alxuraan rek moo gën ci moom. te bi nu juddoo rek ba war a dal alxuraan dalal nan nu yóbbu na na ci daara Sëñ Saaliw ba lépp lu baax lu nit ñi gis ci ñun rek ci foofu lañ ko jëlee ñu ngi leen di nuyu te di leen ñaar di nuyu waa dëkk ba yëpp di nuyu nag uh, képp koo xamante ni jàkkaarloo nga ñun jàngum xasaayit mi moom uh, bu ma juumul uh, bi ma jógee ci daara ji rek 1992 ki laa ko tàmbali di rajas di rey wax ko rey ku ñuy wax ndongo am ci la xamante ak sëñ Abdoulaye Seck après may ànd ak moom doroy eeram bi euh, foofu daal la doore njàngum xasaayit mi mm-hmm. ayca sëñ Modou xasida ñu bëggoon a xam sëñ Modou dëgg-dëgg li ko dugal ci njàngum xasida lu mu doon la wala loo xam ne def koo bëgg rek sëriñ bi boole ko ci waaw ginnaaw dogalub yàlla bi ndax damay dégg ci sëriñ Sàmbay mu ni lépp lu am rek dogal bu yàlla moo ci jiitu ginnaaw dogal yàlla bi moom doon koo doon ci suñuy waajur sunu waajur doon tàggkatu Seydina Mohamed bu mag nekkoon ci atu Seydi Seydi Alaaji Malick si yàlla dogal mu nekk fa ba yàgg fa euh, ba Sëriñ Tuubaa woo ko ci boppam li ko Sëriñ Tuubaa woo ci boppam nag ti lañ jël ñun yóbbu nu ci Sëriñ Saaliwu kon loola fi wax ni loo doon rek mu dëgër waaye nag lépp nañ ci jiital dogalu sëñ sunu borom bi te wax na ni borom xam-xam yi wax na ni Serigne Touba moo wax ni ñii di jàng sama xasaay di maa leen di tànnal suñu bopp kon ñun ci tànneef ak Serigne Touba la nekk kon loolu sant yàlla bu baax. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. léegi olof yi dañuy wax ne loo doon mu dëgër ñu doon ne ko ci suñu waajur wu góor euh, mu doon jàmbaar lool nag euh, ci lim bi mu bi mu tolloo di ko liggéey ñu ni ñu jërëleef bi. Euh, ñu ni suñuy rakk topp ci suñuy ginnaaw ñoom it di ci na bi ba kenn ku ne xam ne xam na ki ni wax taw feex Mbaye ñoo bokk wenn waajur moom tamit mu féeteeg Cheikh Béthio maa ngi ñaan suñu borom doole ko ay leer te taas nu ci barkeem euh, xale yi di na bi ku ñuy wax Abdoulahad ñëw Abdoulahad sax moo jiitu sëñ Xaadim ñëw Tawfekh doog a ñëw loolu nag sant yàlla la ndax bu fekkee yàlla dalaa dimbali nga judd ci ab famille Euh, ñu ñu ñuy la askan yu ñuy wax ngéwal yàlla dogal sëriñ bi def ci ñun xasaayit ñu tàmbali ko ba sunu ay rakk topp ci sunu ginnaaw ba ngéwal gi moom ci dara ji la nekk waaye nekkatul ci jukko yi nekkatul tamit ci leneen kon loolu sant yàlla la bu baax soxna maam jaara waaw Ah, macha allah sëñ Modou ci leeral yu am solo yooyu ma koy nuyu bu baax moom Tawfekh Mbaye invitation bi ci loxoom la jaare muy sunu xarit bu yàgg wax dëgg ni ko ñaanal jàmm ak xéewal te dara ñaawu ci ah, te buñ jógee ci sëñ Modou Galas dañuy dellusiwaat ci Serigne Saliou Seck bi ñu jógee ci portale Cheikh Mouhamadul Fadel bi ah, ñaari pàcc la nag émission Ahlu Xasida bi tey dañuy dikkaat ci Cheikh Mouhamadul Fadel ci am njàngam fan la jot a ci am njàngam ginnaaw bi sunu borom fàggulee xam-xam bu rëy bi nga xam ne làmboo na ko waaw ndax portrait bi daanaka daal laal njàng mi mooy bi ko Serigne tubaa dalalee ba jox ko maam Thierno bi muy dem ni leen dénk naa leen yàlla ak seen baay Thierno Serigne Touba nag ku silwiise la ni maam Thierno nanga fexe ba bu ñu saalañ mooy bu bàyyi seenu kawar mu mel naka sudul noonu ba pare bu ñu buun mooy ñaari fan ñett rek na nga leen toggal ak ndawal ñi di ko lekk ba pare nanu yaru nanu jàng bu fekkee sax mënuñoo jàng ngel la na nga fexe ba nanu yaru kon yaru lu am solo la waaye yàlla dogal maam Cerno doon ku jàmbaare la sëñ Tuubaa tuddan yëpp am mooy saala ñu yaru nanu jàng nanu waaw bi sëñ Tuubaa ñibbisee nag fekk seen i kaamil noppi na ndax biñ mokkale alxuraan sëñ Mamour Diarra la leen sëñ la leen la leen borom daaru yabal neen dem leen mu xool leen ndax baax na sëñ Mamour Diarra Mouhamed la tudd waaye man alxuraan tax ñu naan ko Maam moor bàyyam déggoon na ko ko dégg ñu de ko woowee Mor rek alxuraan ju mën a na tax nga xam ni tund kajoor ak bawol ku musaana mokk alxuraan dañuy nañ dem yóbbu ko ci sëñ Mor Jaara bu fekkee nee na mokk na kon mokk na waaye teewul loolu muy bari bari alxuraan ni mu ko mëneek ni mu ko bëggeek ni mu ko fonke ci sëñ Tuubaa lay jébbalu waaw te mooy magam loolu kon dañ ciy gis ni kon sëñ Tuubaa yëpp moo ci moom la daje te bu yàlla dénkee nga mën alxuraan lool te man ko te yàlla dogal nanguloo ko xañ na yàlla mën na laa gàllankoor ci sa man nga ko man moo tax moo mag ñi ko toppoon dañoo mën alxuraan ba pare teg ci bëgg ko wormaal ko waaye doy na sëkk ci misaal li sëñ Moussa ko wax bi ñu woy si mënul soit bay jeexal dani da ko wax ni ko ma far noppi nda say ndam xajul ci taas mooy këyit te jëbal fi sëriñ fallu Mbacke aw taas daal ni banoo balla nu joomun mbooleem sëti maam balla ay sa yëpp ay biddiw lanu sëñ Fallou mooy weer wi leen di jox leer yaa ngi dégg daal ni sëñ Fallou denn moom di ko tëkkaleeg sëriñ si mi ngi mel ni di ko tëkkaleeg fasi naari góor alil fadil misloon fala taxi soo ximaaran bi jawaadin fasaara soo daal ni sëñ Fallou euh, bu lislaam defoon ak pal yow da ngay dóor ba noppi daal di xaañ ndax mbàkkeeg musoo musoo bee fi daa maas laaj sa néegee sa néeg maam yee sërif lanu gënee fu lay maam ndax boo toppee maam yi ma la wax léegi day ñibbi ci Seydina Aliyu ibn Abi Talib fa lay ñibbi nga toppaat maamam muñ ñu demaat Fuuta ca euh, giri moxo foofu lay ñibbi ca ñooñu ay sërif lanu kon sëñ Fall ñi ko wër ñëpp rek ay sërif lanu moo tax sëñ Moussa Ka wax ni ko su nekk maam yey sërif la nu gënee fu lay maam sa baay jant sa nday weer marax ba yaay daam mhm. ni sëñ Fallou ca meenum Assane ak Ousseynou ngay meet Assane ak Ousseynou doomi si naal yuñ la nu sel ak loolu mënu maa lim li war ci say xeet Moussa bee la ko nampal mu ne fu laa kuuj amoo rax bu lay ñaawal te amoo ko ñuy tooñ kon sëñ Fallou moom sëñ Moussa Ka da koo misaal ci côté yëpp ngir bëgg ñu xam mooy kan njàng mi nag sëñ Tuubaa bi mu ñibbisee taxul mu bàyyi leen day dem gànnaar yóbbaale leen biñ demee moo ko sëñ Mourou Moussa ñuy jàng ci naar yi jàng xam-xam ba dégg arab lool sëñ Tuubaa ñibbi si fii Thiène Jolof bay taxul mu bàyyi leen Thiène Jolof leen tàmbalee di tarbiyewu ñoom sëñ Fall sëñ Tuubaa da ko woo moo ko sëñ Mourou ñu ñëw ak sëñ moo roqee bu ak sëñ Masamba ni leen du ma bàyyi kenn kaddu googu xam nga ñu ko moom sëñ Falloo ko moom ak sëñ Mourou Moussa du ma magi kenn sëñ Masamba ko moom du ma nijaayee kenn sëñ moo roqee bu sa ndax sëñ ma roqee bu sa soxna roqee Mbàkke yaayam doomi sëñ Mor Zali la moo ko sëñ Tuubaa bokk bàyyi kon nijaayama li nekk fi man daal moom jaayantee koy joxe ñoom ñëpp ñu daal di jaayante daal di lu di liggéey nag sëñ Moustapha doon jàmbaar ci liggéey ba sëñ Fall doon jàmbaar am na sëñ Fall nee na am na jamono boo xam ne moom ak sëñ Mor Soxna mu sëñ Mamor Diarra ak sëñ Abdou Diop Dioli ak sëñ Moustapha sëñ Touba dana tëj ci néeg boo xam ne def nañ fa weeru yàlla di ko bindal kaamil bindal nañ ko fa 28 kaamil sëñ Touba ngir tarbiyee leen rek ci ay doom lañu nee na bu waxtu mi di jotee sëñ Touba day ñëw yor yor yor ëmb cere nee daal di ngëb ngëb loxo baraay ci tere ji nee na ku nekk mu la tàllal sa loxo nga tàllal mu teg ci waaye boo koy lekk du suur ndax loxo barkeel bi mu jugee nee ba noppi mu daal di xel kibéru satta la jox leen naan leen ñu naan Sëñ fa nee na bu ko defaatee suba ci midi lay doonaat te mooy seen bàyyi kon tërbiyal na leen fi ne seex yi ngay dégg yëpp ñu siiw bari mbooloo fi nu jaar ba sëñ Tuubaa gërëm leen foo ko raw la sëñ Fallu jaar ba ma gërëm ko sëñ Tuubaa gërëm na ko ay yooni yooni yoon léegi nag njàngam moom nag ba ba àggal ba tërbiyewu ci sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa dem njaareem yóbbaale leen waaye yeggu fa dara rek 1912 1913 Sëñ Tuubaa ni ko dellul Tuubaa nga dem liggéeyal ma fa ndax yow kat yaa doon sàkku ci man foo toll naa ma da nga maa bëgg liggéeyal ci la ñëw sanc ndindi gii di fiy nekk di liggéey lu mu yor jox Sëñ tubaa di ko yónnee ba bi Sëñ Tuubaa génn àdduna mi ngi ko fekk ndindi nga xam ne biñ ñëwee di ko indi fi la ko sëñ Basiru woo ñu daje fi ci fii ji fii jumaa ji nekk daal di koy war daal di koy denc waaye ni ngay xamee ne ñoom la leen sëñ Tuubaa dénkoon ba tey génnuñu ca ndax sëñ Fallu guddi gi jamono muy guddi gi rajab la la julli wàcc moo tax keroog bi ñuy denc Sëriñ Tuubaa bu waxtu julli jot dañooy allahu akbar ñu nodd rek sëñ Mbàkke Buso moo ñu teg leen ko ñu teg ko maanaam bàyyi ko fi ñu ko war a julli ba ñëw door ko àggale muy ndax moom lu mu daan def bu kon ñoom la leen sëñ Tuubaa jàngal ah, maanaam tari nañu ko ci kanamam loolu nag eh, li ma ciy wax jox na mooy ñu xam ni doomi Serigne Touba yëmut ak doomi keneen ndax ñoom euh, koo ci koo koo ci jël rek ba mu tàmbalee ci ndawam ba ak magam du def bàkkaar du def lu ko asafara di fekk. léeg-léeg nga digg nag sëñ Fallou daanaka ñu baree baree bari di ko waxtaane li ñuy waxtaane baatin beeg yooyu nite gi sax moo ko solo ñi mu nite woon ndax yërmandeem fii këram gi war naa mën a rëy waaye taxut mu rëy sëñ Moussa am na fu mu koy wax ne ko woyof ba ni diis ba ni gann te woyof ci wet leer ba ni doom saf sapp xorom maanaam xorom gi am ci moom ak nit ku ñëw ci moom man laa xajoo ba pare moo xam am nga xaalis moo xam amoo xaalis moo xam faxiir moo xam ko man a doon ñëpp la mën a defal ndax dafa yor ñaari rang biy joxe ak bi laaj ca biy laaj maanaam biy laaj lay njëkk lay njëkk recevoir maanaam bu leen joxee ba li mu yor jeex mu leen toog leen xaar ñiy joxe ñëw bu ñu ñëwee mu joxaat leen ko alal ji dugg ci moom ci ci loxoom bu fekkoon kuy denc alal bu fi jógee alal ju baree bari lañu koy miraasal waaye musa denc dara ndax jumaa yi Tuubaa ji sëñ Moussa da ko wormaal lool daan diisoog moom moom it mu bëgg ko lool jël ab taawam tudde ko ko muy sëñ Moussa Dieng ba jox ko ko sëñ sëñ Moussa moo ko tudd tudde ko boppam ndax ci jolof la ko sëñ Tuubaa sampale kër ñoom ñaar jox ko soxna asu silla soxna asu silla euh, doomi soxna soxna asu loo bokk doomi sëñ Abdourahmane loo la sëñ Abdourahmane loo ak soxna Aminta Mbàkke soxna Aminta Mbàkke moom maam Cerno bokk ndey ak baay kon rakki sëriñ Tuubaa la moom la ko jox mu am ca soxna mbenn soxna mbenn mooy ab taaw moo tax ñu naa ko sëñ Fallu bàyyi mbay ak mbenn googu foofu la jógee soxna mbenn moom doomi soxna Astu Lo la moom soxna Aminta Mbàkke rakk maam Cerno kon sëñ Tuubaa ka ko doon jàngal alxuraan la jël doomam jox ko ngir bëgg mu barkeel noonu nag ci la demee moom sëñ Fallu lu sëñ Tuubaa bëgg mu nekk ca ba sëñ Tuubaa jóge fi ci saayir lu si munu soi bëgg mu ànd caag moom ba ci taayif gi bi ko si munu soi di sëñ dafa dem seetu ko mu ne ko dëkk bi amagulul tur yow doon xaar mm-hmm. moom moo sëñ Fallu ma ko tudd Taïf ba pare daal di koy way aw way ci ni ko nag dëkk la boo xam ni leem koo xam ni da ngaa ñàkk sa borom kër mu laa la dimbali ba tey mu nekkatu fi boo demee Taïf sa njàqare faju boo demee ci xalifab sëñ Tuubaa bii yóbbu fa njàqare mu faju bu fekkee da ngaa jaaxle boo demee moom jaaxle gi kon ñoom ñaar ay complice lañu woon waaye nekkuñu woon ay rivalité ndax Serigne Touba mi ñu bokk ba seen lépp ñoo ko defandoo juróom benn weer la ko mage ñoo ànd lépp ñoom ñaar seenu mag ba seenu ndaw ñoo ko ànd seenu ndaw ba seenu mag Serigne Touba jóge fi ñu àndaat nekkaat benn daaw ñu réero ba ci jumaa ji sëñ Moussa fi mu ko yamale woon bi sëñ Fallou ñëwee fi ko tàmbalee mu continuer ndax moom moo ko defar ba fenêtre yi génn sorol yi génn ñeenti sorol yi sëñ Fallou ñëw def ci juróomeel bi sëñ Saliou dina ñëw di koy àggale kon jërëjëf jumaa ji ginnaaw uh, lu am solo loolu ci am njàngam um, liggéey jumaa ji ak Cheikh Moustapha bi digganteem ak moom gën nga ñu fee dugal sax waaye dinañ ci gën a xuus dañuy delluwaat ci Serigne Modou Galas euh, muy taggal ñu Cheikh Mouhamadul Fadel ndax tey bis bi moom lañ ko euh, jagleel euh, ginnaaw sëñ Fallou ci leeral yu am solo yooyu nga xam ne sëñ Saliou jot na xam ne ci moom mu nekkoon jàmbaar nekkoon ku daan taxaw yoonu murid nekkoon tamit ku amoon xam-xam te nekkoon na tamit ku teeloon a sanc ay dëkk ndax boo xoolee ndindi sëñ Saliou wax na ko mi ko sanc ci kon xam nga ne boobu ay atam néew na loolu waaye ak njàmbaaram rek ak liggéeyal Serigne Touba Euh, moo ko ko may ak yar boo xam ne seen waajur wa maam Thierno Birahim yar na leen ko te sëñ Modou Galas nga daal lañuy taggal sëñ moom baax lool nga dugalal ñu fi yaa xam sa borom sëriñ Fallou yaa gëm sa yaa amoo morom yaay sëriñ Fallu yaa xam sa boroom sëriñ Fallu yaa gëm sa boroom sëriñ yaa amoo moroom yaay doomi Ahmadul Xadim sëriñ yaa man sa man sa yaa matagam añ nga fa kiraam sigil fa ahmadul xadim war fa kàmbatul kiram ànd ak borom daaru salaam sëriñ Mbàkke may di jaay jamoom sargal na ahmadul xadim sëriñ Fall yaa ñàkk ki ñaan dootas yaakaari képp ku atum jëlin yaa ca ñaan ci barke Ahmadul Xadim Sëriñ Fallu feeñ Daaru Salaam guddig Rajab ga na moom mooy bis bi ñuy màggal ci moom ñun gaay Ahmadul Xadim Sëriñ Fallu feeñ Daaru Salaam guddig Rajab ga na moom mooy bis bi ñuy màggal ci moom ñun gaay Ahmadul Xadim Sëriñ Fallu feeñ Daaru Salaam guddig rëjëb ga na moom mooy bis bi ñuy màggal ci moom ñun gaay Ahmadul Xadim Sëriñ Fallu mooy ab sërif moo yaatu moo bari moo yor mu ñug suuf tafallu yaatu moom daana fekk ku jëm niiraan mu ñoddi ko fab yërëm ko tabbal ko fil jannaati yàllaahu moom daana fekk ku yor bakkaar ba xal ba tilim mu fóot ko laabal ko bam leer nañ ñi yàllaahu moom daana fekk ku fan way jeex mu yokk banam moo yokk saa fan wi ciy sëriñ Fallu Yàlla defar na Tuuba ay baayu mel defar na Tuuba ba leeral lépp bam ni fay bu leeral ko moom noog Seex Bamba yàllaaw Tuubaa ngi làmp yi ndox meg lépp moo ko fi def moo xoti mbedd yi leeral lépp yàllaaw jumaa moo ko tabax bam àgg Madina bu wér julli moo man góor ñi yàllaaw moo ko fa def saxal ba xeewal yu moo ko tabax bam yaatu yàllaaw moo yokku yoonu sëriñ Tuuba yi moo yëgi bi gën bam yaatu kàpp ba daj àdduna yàllaaw du denc mukk alal lu ñëw mu fab ko joxe te bam ga gàcceel na wax sir wóor na yàllaaw yowmal xiyaamati yowmal asri buñ ca demee sëriñ jiital ko moo ni ram yàlla ku sopp sëñ Fallu boy tabbi jannatu ku noonu baay mbenn boy di naari bakki borom Tuuba macha allah Serigne Modou Gallass ci wolofalu Serigne Fallou woowu ay ca dañuy desandi ba léegi ci yow ñu bëggoon a xam Serigne Modou Gallass wolofalu Serigne Fallou yi nga xam ne dégg nañ la koy jàng neex gi neex ak mbind mi ñu bëggoon a xam ba xam Serigne Modou Gallass moo koy bind wala dafa am ku koy bind di ko. waaw yàlla dogal na man nag du bind kat waaye damay faral di wax sax suñ ma invité ci télé yi may leen képp ku woy Serigne Fallou rek na ma ko indil. ndax moom dimbalil na ma ci boppam dimbal loo xamante ni lépp lu ko waay waye rek bu ñëwee ci man ma daaj ko loolu nag du sama njàmbaar waaye bëgg gi ma ko bëgg te am yéene woy ko nag ba keroog may faatu rek euh, lu ci bari dañ koy bind di ma jox loo dégg ma way ko rek dañ koo bind jox ma waaye ku bind jox ma tamit ma wutal ko daaj boo xamante ni du bokk ak daaj ba nu ma joxoon ci bële. Hmm. ok ñu bëggoon a xam sëñ Modou Gallass ba léegi ci am njàngam euh, kan la commencé fanaane ak guddi ak gën guddi nga mas fanaane mu am lum la def. waa xam nga lépp looy tàmbali rek euh, ndoortal yi dina la marqué euh, te bi may tàmbali maa ngi njëkk a fanaane guddi fu nuy wax ginnaaw raay kañu màngo ya fa njëkk a fanaane guddi 1993. gàmm falaa njëkk fanaane guddi guddi gàmm ma fanaane ko jàng euh, bis boobu moom wax dëgg yàlla def na ma loo xamante ni ak lu mu bëgg di ko door nga doon ca ndaw ñu ñëw ni la ah tey jii day bu soobee suñu borom guddi gi yaa ko war a fanaane loolu moom euh, yàlla dogal tamit ñu bëgg ñu bëgg ñu bëgg métier mi ñu bëgg yëf ndax damay ma ci wax ji njàngoom xasaay du métier waaye day jaamu yàlla gu ànd ak ay xéewalam waaw ndax ñun ñii koy def koo ci gis rek laata muy tàmbali li mu njàng mi amoon na métier mu doon def ba yàllante woon yàlla defal ko ci sax ay ndam waaye xasaay di lu mu watoon rek wat ko xasaay di bi mu ñëwee rek da koy daal di àndal teg ne Euh, macha allah Serigne Modou Gallass ci leeral yu am solo yooyu Serigne Saliou dañuy daal di dikk euh, ginnaaw bi nga xam ne Serigne Touba dëkkaale ji na ak boromam ci 1927 euh, dañuy ñëw rek ci aj Màkka ak Cheikh Mouhamadou Fadel ci 1928 yan circonstances la ñu demee woon Màkka ci jamono jooju. jërëjëf ah, ginnaaw bi Serigne Touba gën a àddina sëñ Fallou bi muy dem Màkka am na ñu bari wax ni xaalisu boppam bu mu bay ci la deme Màkka. waaye bi mu dem moom maam Cheikh Anta daal ñu ànd ak sëñ Mbacke Bousso doomi sëñ Mbacke Bousso sëñ Moulay ak sëñ Alaaji tàkk maam Cheikh Anta yóbbaale woon na lu mat 84 personnes nag ñu ànd waaye nee na bi nu demee Màkka hôtel bi sëñ Fallou dal bëggul kenn dugg fi ndax ni doomi sëñ doomi sëñ Touba fi nekk waaw ndax boobu daa xam dayab doomi sëriñ Touba te bàyyi la ci moom euh, bi sëñ Touba demee rek si mënu soxla daa di daa di songu raay bi ngir bëgg bagage yi war a defar jumaa ji mën a ñëw da ko féetale ndokk ca carrière ba fala ko féetale sëñ Fallou féeta fa nekk fa ci ndigalu magam sëñ Mourou Moustapha sëñ Mourou Moustapha nekk ci nekk nekk ci ba yàlla dogal suñu borom moom ko 1945 47 fekk sëñ Mourou Moustapha bi mu bi muy arrêté booba guerre mondiale moo am ba 49 suñ Fallou daal di tàmbaliwaat liggéey bi mu dooraat fekk na fenêtre yi génn soorali doon juróom waaye yëkkateeguwul ca kaw sëñ Fallou àggale ko. daal di koy tuddee maam Serigne Fall mi ngi ko inauguré le euh, euh, le 7 juin. 1963 261 ajjuma la ko jiite ñaar téeméeri ajjuma ak juróom-benn fukk ak benn la ko jiite. ñeent ajjuma rek la la tardé ci ak dundam maam bi mu ko ubbee ba ni mu fi jógee te booba daa feebar mu ñeenti adduna yi mu génn addina keroog sëñ bu sa ilimaan moo jiite ñeenti ajjuma yooyu mosul tardé ajjuma ndax bëgg gu mu bëgg lu baax euh, ajal na ñu baree bari màkka. sëñ Tuubaa Mouhamed Fadal la ko tuddee waaye mm. alaaji Mouhamed Fadal bëgg ak ak ak bëggug màkkaam ak dafa yóbbu nit ñaa tax yàlla jox ko woowu tur mu doon jàmbar ci liggéey bi loolu nag marché Ocass bii moo ko fi def marché bu Mbàkke moo ko indigré ci tawaayu Senghor Touba tali bi yoonu daara bi moo ko def financé ci 626 millions maanaam ci ndigalam la ko fi Senghor defee tali bi jógee Kébémer jëm si Touba moo ko moo ko lijjante bu mu ñëw fi mu toll ci 664 million bi ndax Senghor da ko wax ni ko sëñ Fallou mi ngi koy wax boo duggee internet di ko dégg nee na Senghor da ko waat daa ñëw ni ko ba boo ma ñaanalee ba ma am ndam dinaa jàpp dinaa la jàppale ci liggéeyu sëñ Tuubaa bi nee na mu ni ko baax na demal di nga am ndam ku ma wax di nga am ku ma wax ci sëñ Tuubaa dara di nga am ndam Senghor dem am ndam bi mu ñëwaatee daal ni ko la ma la waxoon laa bëgg a def mu ngi leen mi ngi nii moo ko waxoon def na ko mm-hmm. sëñ Fallou jox ko bilan mu mu fi bëgg a def lépp waaye ku déggoon alxuraan la nag ndax sëñ Fallou léppam day alxuraan fi a jamonoom alxuraan daf ko indi subhaana li asra bi abdi laylan waaye fan la gën a jamono alxuraan daf ko indi wala yadu ila daari salaam bu dee tubaa da koy indi fi mu dëkk Touba la wax nu ma aab sëñ Fallu ak bis bi mu gën a jamono alxuraan daf ko indi yaa ayyuhal islaam na isa nudee li saati mi yawmil jumaa fasaw ila zikrillah daf koy indi léppam alxuraan la moo tax dégg gum dégg alxuraan mooy Senghor dafa ñëwoon fii ci jumaa ji indaal fi ay dàllam ñëpp ñu bari ko kaas ni ko lu tax nga bàyyi sa gan mu dugal fi dàllam ca moom du jullit waaye ak déggam alxuraan tax na mu ni dallu sengoor ci jumaa ji moo ma gënal ab tànkam ci biir jumaa ji ndax dallu président mën naa bañ a tax ko soble te moom Senghor jëmmam sobe la ndax yaayo lis naa mu ne inamal musir koo najasun kon loolu ak dégg la loolu nag bu amee du bett kenn ndax ku sëñ Tuubaa di sa baay faaw nga kon soxna Mame Bousso mooy Cheikh Mamadou Fadal waaye ak liggéeyam ci dëkk bi ak ni mu sonne ci doomi sëriñ bi sonn ko ci taalibe yi yàlla ñu ko yàlla fayal ndax ak njabootam rek da a da leen a jàngal ba nu jàng ba noppi yar leen taalibe yi ko yàlla joxoon tamit mu jaaral leen foofa ba pare ku bari njariñ la boo ñëwee ci moom faw mu jariñ la bi mu demee Màkk ndeysaan dañu sëñ Moussa Ka bi ma demee aj yow laa ajaale fasaale naa la loolu doon lu réy ndax sëñ musaaka Ka xarit moom la ci lépp ma woon naana wax naan ah, ku bañ alaaji mbaa jumaa ji dinaa la dóor mat la baw la nga daw bu futa toora ndax bëggum bëggan sëñ Fallu ci sëñ Fallu tamit wan ko féete moom ndax sëñ Fallu daa bëggoon sëriñ Tuubaa dafa am benn bis mu taw ba sawit euh, ñëpp dem ci tool yi sëñ Moussa Ka solo ba jekk mantoom ak i dalli bot yu mag daal di ñëw wut si sëñ Fallu nee na mu daal ni ko ah Ka xanaa da ngaa bayiwut yow sa morom yëpp dem nañu bayi waaye sëñ Moussa Ka dafa mën a taalif nag fi mu taxaw ko taalifal dañu ko mbàkke sa bàyyi tax ñuy soosu mbaa nuy ceebu suñ loxo nooy nin falitut am ceeba am ceeba mooy mu taw ba sawet kon sëñ Fallu daa ni ko ah, wax nga dëgg de daan kon demoon ngaa toog jërëjëf soxna maam. suñu saa yu ba xam naa ni des ci waxtu bi sax jotul waaye duñu jeexal mukk te ñëwuñu ci Serigne Fallou ak ay xar baaxam juboo gi nga xam ne juboo woon na ko ak boromam ba tax na ñu koy wax kàddu goo xam ne wër na àdduna muy borom na am mu am borom du am du am. mu nekkoon ku daan faj aajo jaam yi ndax kenn mosu faa indi soxla dëppaat ak moom ah, bari na ci ay nettali yuñ koy wax ñu dikk ci ay xar baaxam ci juboo gi mu juboo woon ak boromam. waaw ku jubboo ak borom la boromam la woon waaye xar baaxi wàllu yi ak seen karaama dëgg-dëgg sëñ Tuubaa na mooy du ñu ma yàlla karaamatul wàllu yi an laa yàq si nee na wàllu yu karaamam dëgg mooy du may boromam kon fi ne nii yeneen yi des yëpp ay ay ay ay bonus la lu mu wane ci ci ay darajaam waaye sëñ Fallu li ko yàlla defal xajul fii waaye li ci gën a rëy mooy ñoom du ñu ma yàlla ndax moom ñi ko xamoon dëgg xam nañ ne fu musaani jullee timis fa la ko gee di fekk te bu fa ba pare mën na faa yàgg lool fajar ga fekk ko fa ndax ak bëgg boromam boo gisee ne mu bari tur bari tur dañuy wax ne day tegtale maanaa ci nit ku doon mbër mooy tax nga bari tur Cheikh Mouhamed Fadal borom Ndindi borom Aliya borom Bogo tur yu bari yooyu ak borom naa am mu am borom du am du am ndax yàlla kat moom moom adduna bi da wax ne dafa xaalu li ma yurit lu ma neex laay def te sëñ Samba daaf mu ko laajoon ndax jullig sëñ Tuubaa gi alxuraan indi na ko mu ne ko waaw mooy julli ga laa def ca moom la soob ku mel ni Cheikhoul Fadal nag dogalub yàlla la sëñ wàcce ko ci biir Serigne Touba bu nit jàqee jóge fu sori boo ñëwee wax ko mu daal di koy mu daal di mu daal di koy faj nga jaaxle amuk jaaxle wàllu xaalis mu faj ko loolu nag sëñ Alaaji Baara ndeysaan mi nga xam tey la bisam yàlla na yàlla yokk ay leeram loolu daloon na ko boo Moussa ñëw di ko wax loo xam ne da koo mën a faj day jël téléphone am di wat daañu loolu du ñaan dañu koy wax ci sens mu faju mhm. foofu noonu la taxee woon ci njaboot gi kon yàlla yàlla yokk ay leeram moom it taasu ci barke muy jàmbaar lool fanweeri weer ak ñett yoo xam ni def na Touba noo xam ni ku ne bëgg na Touba mel ko yàlla ko yàlla dolli sutura dolli ko taraanga fa mu nekk ci barke Cheikh Ahmadou Bamba jërëjëf ca macha allah Serigne Saliou naa ba tey dañuy desandi rek ci Serigne Fallou ndax mënuñ cee wax loo xamante ni si dañ koy jeexal waaye dañuy def rek sunu kéemtalaayu kàttan dañuy ñëw cee diggante Serigne Fallou ak ay frère maanaam ñu bokkal Serigne Touba nekkin bu rafet bi nga xamante ni si nekkoon na ko ak ñoom ba ay tuddante ay njaboot am ci côté boobu lañ bëgg a. waaw jërëjëf loolu nekkin bu rafet la ndax ku ci mel ni Serigne Saliou mii tudd na ko doom. ak sëñ sëñ Saliou moom sëñ rakki maam Serigne Fall muy sëñ Saliou Baye Fall ak sëñ Saliou waajuru sëñ Adama sëñ Basiiru noonu muy sëñ Basiiru ma ca Touba waaye noonu la ko defee sëñ Abdou Khadir muy sëñ Jili noonu la ko defee doomi Serigne kenn ku ci nekk am nga aw turandoom ci këram ndax moom ñëpp juboo nag moom fi ne kër goo dem rek maanaam sëñ Fall ci xol nit ñi la ko yàlla dugal xam nga dañuy wax ni yaasin mooy xoolu alxuraan. yaasin nag 82 aaya la mooy dunduk sëñ Fallou moom nag dafa nekk ci xolub yoon ci xolub murid yi kër goo dugg rek am na fa ko ko bëgg moo xam ci tijaan yi la moo xam murid yi moo xam fu mën a doon foo dem tamit am na fa aw turandoo te nit nag bu baaxee rek dina bari turandoo waaye doo gis mukk nit def safaan bëri turandoo looloo tax maanaam ñu bëri tuddoo ko doom sëñ Fallou rek firnde la ci bi muy teg soror bii keroog dañuy ana Saliou Fat Jaxate moom la ko daan woowee ñu ne sëñ Fallou moom la daan wooyee sëñ Saliou Fall Saliou Fat Jaxate wala Saliou Njool mu ni moom de bu ñëwul lim ma laajatoon lim ma jox boog su ma ko laajatoon fii am kàmb lay doon bu ñëwul rek duñ indi fekk ci boobu jamono sëñ Saliou jox na ko ñetti million ni ko defal ma ko ci euh, xaj pour ñu pour ñu ko pour ñu àggale ko ndax lu gudd doon waaye noonu la mel ci mboolem doomi Serigne Touba yi gis nga ko bi mu fi jógee daanaka diggante bu gàtt moo ko wut ci jumaa ji moom i jiite na ko 1247 ajjuma jumaa yi Touba ji ñaari ajjuma la tardé yoo dafa demoon Màkka dem umra ji kon loolu mooy digganteem ak doomi Serigne Touba yi rakkam yi ak ay magam ni mu ni mu ko def si Moussa rek la ko rakkam yi def. noonu tamit la mel ci yeneen feraram yi nga xam ni ay doomi baayam lañu muy waa kër borom Daaru ak waa kër maam Cheikh yi noonu la meloon kon. sëñ Fall noonu la meloon nag ak mbokkam yëpp diggante bu rafet la woon la sëñ Moussa ko waxee ne ko defar nga say mbokk bañ jag nga defar aw jaamur nag jàpp sa njaamur sëñ Fall nag looloo ko dal maanaam diggante bu rafet rafet moo aman ci diggante ay mbokki boppam ndax fenn fu nekk rek kër goo dem am na fa am na fa turandoo kon loolu ak mbaaxam a tax mu am ko ayca suñ fi ñuy daaneele suñ kàddu muy question bi nga xamante ni si moomu jóg eh, Serigne Fallou fan la fekk yoonu murit ak fan la ko yóbbu xam naa dañ koy boole rek nga tontu ko rapidement ñu daal di nga daal di tàggatoo wàccuwaay yi ko yeneen kër yi diine yi joxoon maanaam ñi mu seqaloon eh, yeneen tarixa yi wan wàccuwaay lañ ko joxoon ak fi mu fekk yoonu murit ak fan la ko yóbbu. yoonu murit bi mu koy jël dafa fekk guerre mondiale am 1945 hmm. dafa fekk guerre bu métti am ci adduna bi foofu la jël yoonu murit waaye bi mu ñëwee maa ngi wax léegi bi mu wax li mu réalisé ci dëkk bi def na fi lu baree baree bare bi armeel Touba yi moo ko moo ko yeesal def fi lu baree bari ci dëkk bi digganteem nag ak relation ak ak ak yeneen ñi bokk ci yeneen tarixa yi tarixa boo dem rek maa la koy wax foo dem am na fa am na am na fa xarit am na fa mbokk ndax tiijaan yi dañuy ay mbokkam ndax moom waajurum wu jigéen muy soxna wa busa day doomi soxna mati ñang soxna mati ñang ak alaaji ñang a bokk ndey ak baay alaaji ñang moo jur sofi ñang mu jur maam da baax te soxna Mati Ñang mi juru yaayam alaaji Malik ko ko yoroon ginnaaw bi lañ ko jox sëñ Bousobe mu am ci soxna bu sëñ jox ko sëñ Tuubaa muy waaj muy am ci sañ Fallu kon moom relation bu rafet la amoon ak ñoom foo ci dem rek ñoom ba ci catholique yeeg ñëpp sëñ Fallu lañ bëgg Senghor gis nga relation ak moom ni ñu demee ca dub jullit waaye lu mu mës a jàpp bu ko sëñ Fallu ne bàyyil mu bàyyi mbërki dem am na benn député am na benn politicien bu ko wax ku ñuy wax Barthélemy Dias mu jàpp ma lool mu ni man du ma jullit murit waaye lu ma mën a jàpp boo ko bàyyi loolu nag lu rëy rëy la ci ñun mm-hmm. kon sëñ Muntaxa fu mu tege moo tax loolu am mm-hmm. te loolu sëñ Fallu mo amoon na ko nga xam ne Senghor du jullit waaye moom lay laaj ndigal di ko laaj xalaat mm-hmm. kon loolu ak mbaaxam moo tax mu ëmban ñëpp amul kenn ko mos a wax ni sëñ Fallu mos naa ak moom jafe-jafe déedéet yërmandeem rek la la nekkoon ak nit ñi ah jaajëfal la la bala ngay tàggoo ñu dem ci Serigne Modou Gallass Mbaye bu ko defee ñu daal di yëkkatindoo jotaay bi Serigne Modou Gallass fi ñuy duggee ak yow ah, naka nga gisee njàngum démb ak tey ni nga xam ne ñoom la mag ñi daan taxawoo xasida yi ak tey ni ko ndaw ñi di taxawoo naka nga ko gisee. waa xam nga loolu moom tontu bi yomb na jamono ju ne rek ak lu cee war am. Hmm, waaw te sëriñ bi moom amul amul saarit sëriñ Saliou moo wax fii ci këram gi daal nii am na ko mus a ñëw ci sëriñ bi ne ko waxaa ci sa taalibe yi ndax dana yàq saa yi di sëriñ Saliou nee sëriñ bi ne ko fu ñu ko yàq dara du fa yàqu te nag lu mu bëggul a defar du ca yàq. Hmm. day bëgg defar rek ba ak yàq fekk ko ca waaye bëggu ci woon yàq nag. Hmm. ndax bi ñëpp kenn ku ne bi nga tëbee jëm ci dara rek olof yi dañuy wax ne kenn ku ne am nga lu la noot. lu la gañe ñun nag Serigne Touba moo nu gañe xéeruñu tamit ci xasaaye dem yi ñu nekk ci di nab nabi njàngum démb ak mu tey moom kenn ku ne Serigne Touba jamono ju ne la fa war a rek dafa war a nekk rek jamono jooju la fay indi jamono ji li fi war a nekk rek moom la fi indi bu nu fi jógee tamit yàlla na yeex sunu ay doom ñoo ñëw dàq nu ko gën nu koo man ndax sëriñ bi moom euh, wa la mu waxaan ci jawatu rek waxu muri ilal jinaani xéet sama tey ne day gàcceel sama démb kon njàngum tey ak mu dem moom foofa ñëw waa démb fan lan fa lan doon jànge waa tey tamit fi ñu toll fi la ñuy jànge kenn ku ne daal li ngay ñaan mooy fi nga nekk di ci liggéey sëriñ Tuubaa muy xasida yàlla la ci yàlla dajale ngërëmal sëriñ bi Aïssa waxtu wee ñu bëggoon a xam ba xam sëñ Moodu am njàngam ci biir réew mi la yam wala mu ngi génn bitim réew wala ci réew yi Afrique waa ñi ngi génn bitim réew ñu ngi génn ci bitim réew ñi ngi jàng ci réew mi tamit wax dëgg yàlla sant yàlla rek yàlla na ko yàlla gën a yaatal xam naa noddu gaa ngi waaj a daanu ñu ngi nuyu ñëpp. xam naa wolofal bi ma bëgg na tëjee sax noddu gee tax ma mën a tëjee. wolofal bi kay mënut a ñàkk. sëriñ Fallu ma doomam ji amoon na raw gi am ma yeddagu leen sëriñ bamba doomam ji amul na raw na leen sëriñ balla mooy tàndarma tóor meññi ni xitaam lu tóor meññi meññit sëriñ fallu moo di koom li li tax ma jël saa lépp man toppal ci bii ba too te loo bi ma tëmu danaa ko too sëriñ wàllu xajul duniyaa takk niir ba la ñu ca badar la fi ñun fan bu dem del si fi ñun sëriñ wàllu ba mu feeñee la xéewali walwalee ci àdduna dootul jëlle jar di tal tali aditu Cheikh Mamadou ay sëñ bàyyi la nga daal di tàggatoo waa santaat yàlla bu baax di julliwaat ci yonent bi di santaat Cheikhuna Ahmadul Khadim di delluwaat di ñaanalaat sëriñ Muntaxa di ñaanal sëriñ Abu Baraka waaye di siyaar nag sama sëriñ Cheikh Mamadou Mourtada moom Cheikh Mamadou Fadal di ko ñaanal yàlla na ko fa yàlla bàyyi di siyaar sama yaay sama lépp soxna maam Fatim Mbakke moom Cheikh Modou Faradal mu soxna Juma Seye maa ngi koy nuyu di nuyu bu baax soxna may mu Cheikh Abdoulaye Lahat di nuyu bu baax sama jigéen sama sëriñ bi nga xamante ni moom laa yendu këram muy soxna maam mbar moom sëriñ Alaaji Baara euh, di nuyu waa kër sëriñ Baara yëpp la ko dale ci sëriñ Modou Moustapha ba ci kii caat ñu ngi leen di nuyu kenn ku ne wàcc waay wi nga am suñu jëm ñu ngi la koy jox fépp fu waay mën a nekk rek tey soppe Modou Galas maa ngi lay nuyu te di la ñaanal maam bu di baax ci jataay bi am contentement ci sama jarbaat bi di seer Cheikh Mourtala bu baax yàlla na jataay bi yàlla muy suñu mujjantalu jataay ci barke Cheikh na Amadou Khadim asalaamaaleykum wa rahmatullah amiin Aïcha jaajëfal la bu baax moom Serigne Modou Gallass Mbaye xam naa xat na ndax Kazu Rajab bi dugg si na te xam naa it ma ko waaye teewul mu dagg ay soxlaam yëpp ñëw teew ci jotaay bi ndax ku ko woo ci Serigne Fallou daf lay di wuyu moom Serigne Modou Gallass Mbaye ñu bu baax yàlla taxawu ko ci barki Serigne Touba Aïcha Serigne Sall lañ lay jox daal nga ne kàddu gi nga daal di tàggoo ak mbokk nga xam ne ñu ngi lay seetaan. jërëjëf soxna Mame Bousso bég nañ lool sëñ Modou njàng mi neex na solo yàlla yàlla yoral baat bi di la nuyu baax maam bu sa yote it tabarkàlla di la ñaanal jàmm di ñaanal baax sëñ Mourtala DG yàlla yokk euh, matériel bi télé bi bokk ci télé yi gën a mag ci àdduna bi an yàlla def di nuyu bu baax a baax sama benn xarit ñu koy wax Alaaji Mbay euh, di siyaar bu baax sëñ Aline Mbay tamit euh, di di fi jaare di ñaanal sëriñ Medoune sëy di am mbégte lool ci teraanga ji nga defal sama xarit bi muy sëñ Aline Mbay yàlla yàlla defal la jàmm ak feex bég nañ lool ñoo ngi nuyu baax a baax mboolem ku ñu seetaan di nuyu baax waa Touba ñëpp rek bàyyiwuñu kenn góor ak jigéen mag ak ndaw noo ngi ñaan yàlla def fi jàmm ci réew mi ci barke Cheikh Amadou Fadal bëgg nañ lool yàlla yàlla def jàmm yàggal fi sëriñ Muntaxa ak sëriñ Abo Baraka waaye tamit di ñaanal baax a baax xalifa sëriñ Alaaji Baara bi sëriñ Moustapha yàlla yàggal ko fi jërëjëf bëgg nañ lool am nañ mbégte yàlla yàlla def jàmm Ah, macha allah Serigne Saliou ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax ci seen teewaay jamono xam na teewul teewul ngeen ñëw. merci beaucoup Khadimati yi nekk foofu ci marché Ocass mi nga xam ne moo jaar ci make-up bu yanj bi bañ man maa xool ngeen mën koo woo ci 77 578 65 12 moom Mati Khadimati Diop sama xarit bu baax boobu maa ngi koy sant bu baax ci ko gërëm. ak li nga xam ne moo jaar ci garaam bu muy Moustapha Couture sama tailleur bu mag boobu ci marché Ocass xam naa dinañu affiché numéro bi. Euh, may sant ñëpp di leen gërëm di siyaare bu baax waa kër Serigne Fallou yëpp di ci jiital sunu xarit sëriñ Mourtala Mbacké moom Serigne Moustapha Alaaji Baara ak sëñ Abdou Fata mu sëñ Modou Xabaan ak sëñ Seexuna mu sëñ Abo Fallou di sëñ siyaare sëñ Xaadim Mbacké Rafaay ñoom ñëpp ñoo ngi di siyaare seen bisu maam ji di leen ñaanal yàlla taxawu leen ñi jàppoon ci liggéey bi ba mu yemb muy DC Mourtala Fall moo jàpp ci caméra bi ak montage bi vraiment ngi koy gërëm bu baax di sant équipe Rafah TV soxna Mamou Sow Samat moo nekkoon ci kàddu gi seen émission Ahlou Khassida la woon ñu leen di jox dig daje ci beneen jotaay incha allah jërë ngeen jëf. café Touba di café bi kilifa yi taamu café bi jëwriñ yi taamu boo ko taalibe yi gën a firndeel loolu ngir sell gi mu sedd neex taw féexel lool. café Touba di café bi ànd ngeen mën ko wécc ko ci njëg yu xéwale ba noppi wooteel ci numéro yi 78 593 54 54 78 593 50 50 café Touba Madibo café bi sàlloo cafkay café dëgg établissement Touba Daaru Naïm Njaay bi barab bii mooy spécialiste si lépp lu aju si wàllu njaayum bi waaw kenn matul dubaay Dubaï Émirats arabes unis Arabie saoudite Iran ba Irak damani lépp lu ngeen bëggati si ay jàllabi doon ay jàllabi yoo xamante ni tegu na si temps dëgër na rafet na ci couleur bu ngeen mën ci bëgg mu doon taay également wala sax ay manteau a ah, ak si ngeen nag lii nag ci ay maxane yi maxane yi nga xamante ni mbokk yi da nga koy sol mu assorti ànd ak sa jàllabi wala sa manteau wala sax nag bu si kàddu wala sa xabtaan maanaam daal ma xam ne moom style booy wër boo fi ak si xam ni établissement Touba Daaru Naïm Njaay jàlla bi fii nag mbokk daamani ñàkk ko xam de wóorul yamuñu foofu lépp lu ngeen itteewoo si ay dàll ay dàllu cuir yoo xamante ni la mu dëgër mucc na ayib waaye tamit bu ngeen di wër ay marakis parfum moom lu ngeen ci bëgg moo ngi fii di ay parfum de classe ay parfum yi ngeen di utiliser ngir seen safara bagage yi nag mbokk yi nee naa la jaxatul kenn dem capitale sénégalaise Dakar di ko fay jëkkaan yi jaxatul kenn dem bitim réew am nañu ay valise ngir seen ay bagage si jaada si bu ngeen si mën di bëgg si jaada bi nga xamante ni mbàjj la nooy na nepp yaatu na également ay laxasaay ay maxtu amit ay baylaat dama ni mbokk barab bi moo am ay bagage yu ngóoriti établissement Touba Daaru Nayim Njaay Jalabi mi ngi si tuuba jàkkaarloo kër Serigne Abdou Lahad Mbacké si jumaa ji woote leen gaaw 70 354 07 10 wala 77 925 62 97 ñun daal mbokk jàpp leen ni lu ngeen di itteewoo rek moon tax a jóg moo tax ñu jëli lépp indi teg fii si Touba établissement Touba Daaru Naïm Njaay jàlla bi taxaw temm ngir gunge leen si lépp lu ngeen itteewu si ay jumtukaay yu mérité Rafah TV une chaîne de télévision culturelle et religieuse. xasida yi ci ci xasida yi rek ci xasida yi rek lan mën a xam sëriñ bi ci xasida yi rek kenn ku mën a bëggale ci xasida yi rek. xasida yi. sëñ Abdou ci wax bismil ilaahi ci barkeb sayxi faddilu mi mbokki Sénégal su ngeen bëggee xam la numéro un des carreaux da ngeen agsiwul fii si Touba jàppale ni mbokk yi bi tay foox accès ba léegi ñu nag société bu nu ràññee loolu si wàllub carreau si àdduna wërngal këpp ci liggéey bu baax si ay carreau yu mucc ayib waaye nag mbokk yi fii si Touba seen représentant bii di Touba xéewal carreau nekk si Touba 28 kër Serigne Mbaye Sarr jàkkaarloo kër Serigne Abdou Wadour lépp lu ngeen itteewooti si wàllub carreau ngir seen ay travaux si ay carreau dernière génération mën a dékku mbooleem température waaye nag liggéey bu am étanchéité prix xéewal yi boo dul am faneen fu dul fii mani mbokku am nanu grès poli 40 sur 40 ak it grès poli 60 sur 60 amit porcelaine 40 sur 40 60 sur 60 amit émail dimension 30 sur 30 40 sur 40 am carreau faïence sur 30 25 sur 40 ay antidérapant si ñaari façon am nanu antidérapant décor antidérapant crin 30 sur 30 amit grès sédam bari ay façon loolu première qualité 98 04 am na fi également ay ci dimension 30 sur 30 am nañu couleur bu beige amit couleur bu gris ah mbokk yi lii nag mooy la qualité totale saa su ngeen itteewatee produit yu baax bëgg ay matériel yu mucc ayib ajo si wàllu carreau bu ngeen agsee fii si Touba xéewal carreau boole magasin bu jënd di jaayaat dama ni jaxatul dem usine ba fii la gën a yombee fii la gën a yembee fii la gën a xéewale ak si xam bu ngeen bëggee lépp lu aju si wàllu sanitaire si matériel de qualité am nañu lavabo ay chaise anglaise wala ay robinet ak lépp lu si mën a doon ay commande ñu defal leen livraison lu mu sori sori si Sénégal wala si biir Touba sunu ay oto yemb na gaaw leen gaaw woote si 77 501 24 34 76 585 53 46 ah bu ngeen bëggee nag seen i mbëbët antu ñëw leen seet si représentant Tayfort di Touba xéwal Caro si Touba 28 lépp yemb.